الحمد لله الذي أغناني وأعزني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 variété punch ma dàkkal teranga lu ko dàkkal mooy mi dekk galañ ma ñëw di ko bàkk moo ci xewi xeewala mi mi bu ko ñàkk moo mën ci bépp xeetu teranga man punch moo ma doy ci terangan punch fi man boo bàyyi ma servir la

الحمد لله الذي الحمد لله الذي أغنى السلام عليكم ورحمة bis bu mag bi ñëpp doon xaar agsi na bés sa bés bis bi mooy sunu bis bis bi sama bis la bis bi sa bis la bésu jullit yëpp la ndax bésu alquraanul karim la mooy bis bi nga xam ne nag daare Ali Imran bu Oustaz Alioune Sall moom lay amal at mu jot ndongo ya nga xam ne ñoo nekk ca daara jë di fa jànge alquranul karim war koo fésal nag ci kanamu seeni way jur ak ginnaaw ba ñu ko mokkalee mbokk yi bis bi nag dimanche lay doon 4 juin 2023 ma ngay amee fële ca CICES bu 9h ci suba jotee ci la ñuy amal mi en place bi ñu ngi ciy woo xarit yeeg soppe yeeg am gi jàmm yi bàyyiwunu kenn bàyyiwunu fenn bàyyiwunu ñenn képp koo xam ni soppet alquran nga rek ñu ngi lay woo ci bis bi mbokk yi nag ren ñaar ñi nga xam ni ñoom lañu ñu bàyyile bis maanaam parrain yi moo di nag alaaji Dóora mu baax mi yi di président Ali Imran bu France alaaji doora mi nga xam ni mooy teewal Oustaz Alioune Sall ca mboolem xew-xew yay xew foofee ca France moo xam muy ngénte moo xam muy céet moo xam muy dëj alaaji doora taxawaay bi rafet na yàlla na yàgg loolu waaye xam ngeen ne nag keneen ka des mooy coordonnateur diaspora bi di alaaji Ibrahima Ndiaye Kalandou moom mi nga xam ne nag mooy dalal Oustaz Alioune at mu jot ci këram di sonn lool nag ci conférence yi alaaji Ibrahima Ndiaye yàlla na fay la waaye mbokk yi nag xam ngeen ni am bàyyi am nga ndey kan lañu ñu ndayale bis bi nag maanaam marraine bi kooku nag ca dëgg-dëgg mooy jigéen ju man góor kooku nag mooy soppeb yonente bi directrice su Ali Imran waaye nag mooy assistante oustaz Alioune Sall di ngi noonu di bisub Alquran di bisub Ali Imran ñu di ko na fa soppe ya xarit yëpp bokk daje mbokk yi kon bis baa ngoog bu kenn tàngam lu bii wootee bu kenn it wuute bii wootee ndax ku wuute woote bi def nga jootee na fa ñëpp teew yàlla nañ ca àgg ak jàmm الأركان مجموعها خمسون مع مئة إذن في كل شهر يا بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bokk ñu seetaan ci biir mi ak ci bitim réew asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu Ali Imran TV ci seen jataay bi muy tuddee siira ngeen koy am benn samedi ci ñaar dellu na di leen ko defal si sira ay jataay la yoo xam ne day jàngale dund yonent bi alayhi salaatu salaam jaar-jaaram yépp benn par benn siira tomb bi ñu nekk mooy li tàmbalee ci juddoom bi ba ci biñ ko yónnee xew-xew ya fa xew ci foofu lañ toll ci tomb boo xam ne mooy thème principalu jataay bi tomb bi nga xam ne nag mooy thème bi ñuy toll mooy alayhi mu ngi toll ci euh, ati waxambaane toll ci wut liggéey toll ci jàng métier toll ci liggéey ba am lum tedde teral ci bokkam ba demee ci imam Ghazali mu mujj mi Muhammadul Ghazali defal na ko tomb tudde ko xuwatun wa nashaat te mooy alayhi salaatu salaam xëy na ne dootul xëy toog ci kër gi loolu moom jeex na dootul toog xëy toog ci kër gi loolu jeex na la ci teg mooy kenn dutul participer ci dépense te participer wut loolu tam jeex na ku def dana def ndax dépense bi ci kër gi du nangu ñu ko yóbbaale alayhi salaatu wasalaam mu tàmbali nag di tijj ay bunt bunt bu liggéey ñëwoon na ci bindi weesu bunt bi mu njëkk ubbi mooy ànd ak ñoom baayam Abu Talib ak euh, rihlata shitaay wa sayf fas yéene bu ñuy dem mu ànd ak ñoom bu ñuy ñëw mu ànd ak ñoom bu amee capital dana dem bu amul capital dana dem noonu lijjanti ci liggéeyam lu tax mu mën a am dara ci kër gi loolu nag alayhi salaam teel na ko xam teel na ko jëf bëggoon xeetam wi yépp ku toll ci ati waxambaane nga xam bind boobu taxaw ci bind boobu pour jëfe ko ndax te kat kuy xaar ñu defal la léegi tey doo def dara nit day def lim man gis nga boo ko seetloo bu oto songee nit ba koo fiir loxo lay tàllal oto ba lu loxo man dara waaye loxo yi lay jéem a tàllal ba ku toogoon tey fi nga toog yàlla tere tabax bi di wàcc ndànk di la wut si doo ko yenoog sa bopp say loxo ngay tàllal wala fi danañ wax ni picc sax bu fekkoon da nga koo tiim ba ko dóor birig tànk yi lay tàllal boo ko ci dóor duute day pacc waaye def na la man alayhi salaatu salaam commencé def nag ñu tuddee muxaamara mooy fas yéene jóg pour def dara mu jaral ko mu ànd ñoom dem Saam ba mu demee Saam dégg ngeen la ko labbe ba wax mooy ku dul man bu la gisee fexeel la man mii ñàkk pexe tax fexeelu ma la daan ne bàyyam Abu Taalib kii su ma doon yéen dootuma ko génne dama koy denc fii mu nekk rek bali koy dikkal dikkal ko noonu la def alayhi salaatu wasalaam daal di delluwaat makka kon commerce gi moom daal nay dakk foofu boo moytul du ca sori waaw sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane si jàngalekat ba mu ngi nuy nettali sëriñ Babacar si dafa tàggu woon maam Cheikh Alhaaj Malick ne ko damaa bëgg a def commerce daal di fay jóge ñëw dakaar jënd marchandise mu bari daal di ñëw teg ci néeg bi yaayi sëñ kër Si daal jàpp ne lii lu ñuy maye la mu may ko waa koñ bi ñëpp sëñ kër Si defe ne daf koy placer marchandise bi ndeke daf koo maye bi mu toogee ba rek la jot mu laaj ko kan kan nga joxoon mu ne ko ah ci lan mu ne ko bindoo leen mu ne ko déedéet ah maye lu ci jar bind mu ne ko man mayewuma ko dama ko doon commerce waaye xam nga commerce googu du sotti yonent bi tamit bi mu demee euh, ca Sham looloo tax commerce ga sottiwul waaw moom daal labbe ba gis na ko wan mbokka mi ne leen kii de nun xam nañ ko xam nañ ko ci suñ téere yi xam nañ ko ci suñ takk garab gii mu toog ku du yonent doo fa toog mbokk yi barki démb wane nan ci e, internet bi garab googa yonent ba toogoon ndekk ma ngi dund ba léegi allahu akbar garab ga booba dafa naatut amuti xob waaye fi nekk nii ci garab yi gën a bari xob la bokk alayhi salaatu daal di delluwaat kon e, makka di wut meneen pexe pexem tey mi nag mooy kon ginnaaw dellusi na makka day wut beneen liggéey ban liggéey lay wut tey liggéeyam sàmm tey da bëgg a sàmm ba mu ko waxee saxaaba yi sax am na ñu ne ko ah yow sàmm nga mu ne yonent bu yàlla yónni sàmm na waaw ndax ku bëgg a sàmm nit ñi dangay ngay jàng sàmm xar yi ku mën a sàmm xar rek lee nga mën a sàmm nit ndax xar moo gën a jafee sàmm moo gën a yomb sàmm ci nit boo mokkalee sàmm xar rek léegi nga mën a sàmm nit wala fi nee nañu xar yi wenn yet moo leen di sàmm nit ñi nit ku nekk yetam <laughs> moo tax yonent bi sàmm sàmm xar xar yi yóbbu leen bi yóbbu ca ñax ma xar ya lekk ci ñax mi bu ngoon jotee mu yóbbu leen ci déeg ba xar yi naan wàññeeku indi bu subaa mu xëyaat képp ko jox sam xar weer wu jot am na loo koy fay weer wu jot am na loo koy fay bu doon càlle mbaa cilmaxa mbaa kol weer wu jot trois cent ngay fay trois cent franc ngay fay par weer boo amee ñaari xar six cent ngay fay boo amee ñetti xar di fay neuf cent loolu bala nga am xaalis da nga ci am xar yu bari bari bari door a mën a am xaalis càmm waaye nag xaalis ba dafa barkeel nag gis nga léeg-léeg nu romb ci tali bi jaaykatu ndox jànq bu sarse siwo ba mu fees dell ki mbuus muy jaay waaye mbokk yi bu fekkee mbuus yi fukki dërëm lay jar ñaata mbuus lay jaay door am xaalis loolu xaalis bi bëriwut xëy na ma naa mu barkeel alayhi salaatu salaam daal di jël xar yi di sàmm waaye dëkk boo dem am nam nogay ay nogay sax laay wax dañ koy sàmmloo te duñ ko fay dëkk boo dem am na nogay wala ay nogay ñu koy sàmmaloo te duñ ko fay bu weer deexee ngay làkki daar daar waaw xaaj bi daa ñëwagut jotaguma mandat waaw sama jëkkër nii rek ñun ñi jaar ci jàngale école arab ñun ñi jaar ci loolu daan jàngale ci village yi ñu ñu defal ay mbaar xam nañ ci dara léeg-léeg gone gi nekk fi at mi yépp neuf mois yoo xam ne daanaka du fay te kat ndekete baayam mi ngi jox yaayam lu mu fayee yaayam di faje soxla pay ga di lay ustaas mbokk yi bu loolu métti bu yàggee day metti yonent bi alayhi salaatu salaam di jànkoonteeg loolu ko defee liggéey boobu it kon day daal di mel ni liggéey bee mu doon def boobu duxut waaye daal tàmbali na commerce duxut mi ngi sàmm xar doxut léegi leneen moo fay war a dox mooy wut meneen mecc bu bokkut ak sàmm mbokk yi yonent bi daal di bëgg a jeexal nag benn marxala muy benn étape war a dugg ci beneen étape mooy étape boo xam ne bii denc soxna day jot ci soxna day jot sunu borom mi nga xam ne mooy al azizu mooy al hakim nga xam ne kum ommat boo jaaree fam la jaarloo noppalu sunu borom mooy al azizu mooy al hakim léegi yonent bi àgg na ci marxala thalitha min umrihi mooy marxala boo xam ne bu ca góor tollee day denc waaw léegi nag sunu borom war dogal mu denc xadijatu bintu xuwaylid waaw xadija xadija jigéen ñëpp war nañoo jàng xadija jigéen ñëpp war nañoo jàng xadija ndax jàng xadija dana may jigéen bindub sëy jàng xadija dana may jigéen bindub wut waaye jàng xadija dana may jigéen bindub jëfe li nga am euh, boroom xam-xam ñooy wax ne góor goo gis mu mat am na jigéen ju mat ju taxaw ci wetam waaw loolu lu am solo la góor goo gis mu mat am na jigéen ju mat ju taxaw ci wetam waaw waraa kulli rajulin azim imraatun azima waaw góor goo gis mu mat rek am na jigéen ju mat ju taxaw ci wetam sens contraire bi nag xam naa mooy am ba tey Xadija euh, nun la def moo tax yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ñoom it ci ànd ak jigéen ju mat bokkut ak ñi ci ànd ak jigéen ju matut yonti yàlla noox gis ngeen jigéenam ja waaw yonti yàlla lóot gis ngeen jigéenam ja te asxaabu risaalaat dañu soxla jigéen ju mat ju taxaw ci seen wat wet yoo xam ne danañu mën a taxaw ci wetu góor yàlla yooyu taxaw yu mat sëkk taxaw yu mat sëkk mooy waral eh, mu am solo moo tax dunduk suñu yaay Khadija taxawaayu suñu yaay Khadija def na ay empreinte yu am solo ci dunduk yonent bi alayhi salaatu wasalaam yu am solo Khadija jigéen la woon joo xam ne taajira la woon maanaam ab commerçante la woon waaye commerçante la woon boo xam ne ku ku ku am wàccuwaay la woon ca penc ma te amoon xaalis daan jox góor ñi ñu dem jaayi ku jaay boo ñëwee am nangam pour cent loolu léeg-léeg gis ko ci dëkk bi par exemple tey ñu ne kii dañ koy jaayloo dañ koy jaayloo carte fidélité bu si FM dama joxe misaal mu ñëw fi Fat Njaay Sekk jox ko juróomi téeméeri carte carte bu ne di jaar cinq mille mu ne ko boo demee boo jaayee cent franc yoon da ci am di franc loolu kii jaay dana xam moom bu ñëwee ñaata lay am loolu dagan na xale yi loolu doon def xale yu góor yi dañ fay ñëw indi seen CV wala indi seen dossier mu mu def ak ñoom entretien waaw ndax moom tam jigéen la ju doon commerce waaye ku ku ku yeewu la woon bala laa jox ay bagages am da lay def entretien am na xale bu góor boo xam ne boo ko joxee ay bagages du indi dara te indi du indi dara gi sax moo ci tane am na ko xam ne boo ko joxee danaan mes ne menteñ ak moom moo tax loolu ndekete bi ko diine jàngale yàgg na su ne yaay Xadija di def entretien waaw wax naa ko barki démb ci sunu gàmm ngëleen nekkoon ca ca ca ca ca Cees xale yu góor yu baree bare bari fi nekk boo leen woon fii ci Ali Imran TV ñu def ak ñoom entretien bu ñu def fukk juróom-ñaar yi duñu wax loo xam juróom-ñaar dañuy méb rek wax naa keroog nag da gis xale bu góor nga ne ko noo tudd mu ne bon ñu ngi may wooye galaay ah noonu lay wax waaw noo tudd neel galaay rek ah bon dañ may wooye galaay ah kenn ki boo ne ko noo tudd mu ne bon man la taf-taf quoi fàtte na sax ne moom mooy Souleymane mune man la taf-taf quoi dossier bi tur bi ci nekk néew na xale jox la ko sàllaaw fekke naa ci benn commissariat boo xam ne xale yi jël si signature mënuñoo ñëw rek ne dama fee ja dama fee déposé woon kayit doon wut signature nangam nangam déedéet da nga wax bon dama jaaroon gàlle quoi doon caaj di jaar commissariat bi quoi bon di wax wax yoo xam ne Xadija it góor ñi daanaka ku ñëw loolu ngay wax xale yu góor yi daanaka kenn mënul am marchandise kenn daal la ci jël muy may sara moom wax na wax ju correct mu jël ko jox ko bagage bi mu bi muy lim dossier di woote nag ba agsi ci dossier ku ñu wax Muhammad mu woote mu dugg si sallallahu alayhi wa sallam kenn yónneegu ko amagul 30 ans déedéet waaye sérieux sérieux goo xam ne ku def ak moom entretien rek naw ko sallallahu alayhi wa sallam hmm? waaw mat du toog ak nit di wokkatu di xasanu déedéet di ñandeeku di oubli non toog bu sérieux suñu yaay Xadija loolu daal di koy tàmbalee marqué mu laaj ko nu mu tudd taabal jàng ndox seen diggante mu ne ko Muhammad waaw moom moom ba agsi ci say waajur mu ne nelaw nañu koo nekkal sama baay Abu Talib waaw nangam nangam waaye entretien bi question yeeg réponse yi jub lool ci suñu yaa Xadija mu xam ne beneen beneen élément ngi nii bu mu war a booleeg Maysara mi nga xam ne mooy chef bi mbokk yi entretien bi jeex entretien nag ndeysaan léeg-léeg ñu def ko nit daal di ko malgré waaw da di koy malgré eh, xale yu jigéen ñi muur seen yaram ba mu des xarakanam ak tenq pénc mi naa leen ibaadu léeg nga jàng li jigéen ñi jàng am diplôme yi am yor yar bu ñuurut ñoom yor njub gu ñuurut ñoom nga def entretien luñ lay dàqe musóor gi sabab bi fulaar gi muuraay bi ci lañ lay dàqe waaye waa ji daa am ab usine usine ba day defar lu ñuy lekk mu jël fa ay gaay yoo xam ne dañu dañu fonk diine bu ñuy xëy si dañuy jàpp bu waxtu jotee dañuy julli mu de leen seetlu ñiy liggéey ci usine bi kuy wàcc wàccaale liibar ca la muy liggéey ñenn ñi wàccaale kilo ñooñu mu jël nag teñ mel noonu ci wàllu diine seen loxoy nan la ñuy wàccaale raxasu ñibbi waa ji nag tàmbali kon ne kon di jël ci ñii daa gën di jël ci ñii loolu sunum penc duñ ci bàyyi xel mukk waa ji tàmbali nag di recruter ca ñee ndax lan ñoom bu ñuy wàcc duñu wàccaale benn liibaru la ñuy liggéeyee par exemple bu ñu woon biscuit la wala tàngal la nga am juróomi téeméer yooyu liggéey si juróomi téeméer yooyu kenn ku ne bu wàcc wàccaale liibaru tàngal ah mbokk yi loolu usine bi attanu ko waaye ñii muy jël na nga xam ne diina daf leen a ñor ñu fonk seen diina lool di góor góorgóorlu ñoom bu ñu wàcc waxuma leen libre tàngal waaye benn tàngal duñ ko ca màcc léegi nag dëkk bi nun la mel xale jigéen yooyu di muuru nga xam ne xel xalaatul ñuy jël dara moom jàmbur xel xalaatul ñuy bokk ci complot xel xalaatul ñuy ger kenn maa ñuy lekk ger waaye dañ naan la du ñu la jël parce que da ngaa muuru mbokk yi suñu yaakaar yi jàkkaarloo ko alayhi salaatu wasalaam entretien bi jaar ci yoon lool mu war koo chargel nag mu war a ànd nag dem liggéeyi ndax mu mu war a ànd dem jël fonction mu boole koog benn xale bu ñuy wax Maysara moo koy defal stage waaye mbokk yi kii defal kii def stage bi kiñ koy defal mooy kan kiñ koy defal mooy ngën ji mbindéef mooy ki nit ñëpp di xaar nu yónni ko mu defar leen waaye kii di may sara moo koy jàngal tey nu ñuy jaaye waaye jàng na ca njàngale ma loo xam ne bu ko jàngalu toon du ko jàng ca njàngale ma teg leen seen baaram foofu ñaan suñu borom ñu del ñu del siwaat ci aj samedi bii di ñëw bu dellu see incha allah ginnaaw samdi bi ci tegee dañuy new ci Al Oustaz jàggat jaajëfal nañ leen jaajëfal suñu caméraman Pape Doudou jaajëfal mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew di abonné